di sant yàlla bu baax tey comme ni nga ko waxee ci plénière bi mu nekk plénière bu am solo ndax agriculture dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci dëkk tey foog naa ne budget bi dafa war a yomb parce que gis nañ jéego yu président def aussi si agriculture foog naa député yëpp a ko war a voté parce que gis nañ semence yi mu indi gis nañ matériel matériel agriculture yi nga xam ne indi na ko mais gis nañ aussi vingt milliards yi nga xam ne war nañ ko dolli ci budget agriculture mu nekk loo xam ne aussi dina dalal xelu baykat yi mais dina dalal xelu sénégalais yëpp parce que tey ñëpp ay baykat lañ ñëpp nag bu ñu nekkee baykat dañ koy gërëmee président de la république dëgg la taw bi bari na nawet am na waaye nag dañoo am semence de qualité moo tax tey macha allah yàlla dimbale ñu ba nawet am ñiy xaar lu mat un million huit cent tonnes loo xam ne ñu ngi koy xaar wala lu ko ëpp. wala 2 millions sax loolu lépp bu amee aussi lu ñuy def rek lu dul jéem a wax ministre bi que ñu installé ay unité de transformation nga xamante ni li ñuy bay dinañ ko mun a utiliser ci dëkk bi ba nga xam ne yeneen dëkk yi nga xam ne wër nañu wala fépp ci ci monde bi ñiy ñëw di jël ci ay produits fii ci Sénégal loolu nag am nañ ci yaakaar bu baax ndax gis nañ vision président que ne dina dina gën a dineen gën a taxaw ci loolu ba nga xamante ni tey li ñuy bay dineen ko mun a produit fii ci ci ci dëkk bi lu ci mel ni arachide ak yeneen ak yeneen. en tant que jigéen nag nga nekk fii tey euh, ñu nekk ci biir euh, li nga xam ne mooy 15 jours de activisme maanaam violence yi ñuy def euh, jigéen ñi suñu mbokku jigéen ñi ban kàddu nga mën a sànni ci loolu. waaw loolu di ko di ko di ci di waaye di ci am yaakaar parce que vote nañ loi euh, violence faite aux femmes loolu dañuy ñaan ñu gën koo appliquer mais gën ko dëgëral parce que jigéen ñi dañu sonn jigéen amul doole jigéen dañ ko war a neexal mais jigéen mooy yaay jigéen mooy defar kër mooy defar réew kon bu ñu gisee ñu leen di mettital ñun en tant que jeune parlementaire nag jigéen du ñu def lu dul jéem a ànd ak ñoom ci xeex boobu ba nga xamante ni tey jigéen dañ koy gën a jox gëddam ñi wax parité président fekk ko fi mais ñëw gën ko dëggal tey loolu moom ma indi assemblée indi fi sama yeneen morom loolu dañ koy ñaan ñi gën ko appliqué ba nga xamante ni parce que jigéen ñi dañu am jom gis nga assemblée nationale taxawaay bi ñu fi am am ko ci commission yi am ko ci plénière yi mais tey jigéen ñi bu ñu leen impliqué noonu la ñu noonu la ñuy amee taxawaay ci mairie yi am ko ci conseil département yi ak fépp foo xamante ni góor yi ñu ngi fa nekk di dogal aussi bëgg nañ tey jigéen ñi jot ci seen wàll di dogal parce que xam nañ ne xel mi mate na ko te engagement bi mu ngi si jigéen ñi kon loolu daal euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy xaar ñu ngi ciy invité waat président de la république moom mi nga xam ne xam nañ cër bu mu jox jigéen xam nañ gëdd bu mu jox jeunesse euh, ba ba suñu xel dal na ci loolu mais ñun tamit en tant que jeune dañuy continuer di défendre loolu noonu. Mmh. yow mi nga xam ne jigéen nga ndax euh, gis nga sa bopp ci vraiment say droit fii ci assemblée ak sa nekkin fii ndax vraiment amoo ci benn jafe-jafe. gis naa ci sama bopp ndax gis ci sama bopp moo tax ma ñëw fi ndax bu njëkk ñi waxoon parité tur bi rek la woon mais président moo ko appliqué ko appliqué bi mu ko appliqué moo tax man ma ñëw tey assemblée sama yeneen moroomi jigéen ñëw assemble mais nag comme dañu nekkoon jigéen ñi dañu nekkoon di souffrir di xeex manqué lu bari tey dañuy ñaan mu continuer jéego boobu ak yërmaande bu am si jigéen ñi mu gën ko continuer pour jigéen ñi tey gën a mun a gis seen bopp waaw assemblée fii gis nañ fi suñu bopp bu baax macha allah. ñu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu bu mujj di seet. di di kontaan ci waa Sénégal yëpp mais di ñaan aussi si dëkk bi jàmm nawet bii nga xamante ni macha allah ñëpp nee nañ nawet bi am na ñu ñaan ñu muuroo muurloo ko pandémie bi nga xamante ni mu ngi ñuy wan ginnaaw te ñu gis état bu Sénégal def ci taxawaay bu am solo loolu tamit ñi ngi ñaan mu jeex ci àdduna bi yëpp di gërëm ñëpp.